sedd jékki-jékki mu ah, commencé tàng waaw waaw mais dana sedd nag waaw ah, ah. dana sedd waaw que dégg naa côté Europe bi commencé na sedd Amérique beeg ñoom sedd dana sedd de xam naa ci lu yàggatul di nga mel ni suppa bi jëf Seydina Omar Ba nga ko mën a waajal waajal am na si solo <laughs> lu yéen a kaay xëy Walf Quotidien lañ koy dooree

Euh, ci gannaaw ga ngay gis Amadou Ba yéen kaay gi ne lii daal bu d'accord Amadou Ba daal élection présidentielle yi du ci am sens noonu la ko yéen kaay euh, di la tribune ne ab opposition bi jamono ji ngay wax utali ci kawam syndicat jamono ji ngay yëngatu njëgu dund bi mhm. yéen gi ne Macky Sall nguuram mu ci tànk jeex waaye ci ay jafe-jafe nag noonu la ko yéen gi xëy fësalee euh, Macky Sall nag ak président Macky ak it yenn ci ay jumtukaay yoo xam jot na ko fee Macky Sall euh, def noonu la ko yéen gi di réew euh, mi quotidien yéen kaay gi di yi nga xam ne jiite euh, amul dara lu mu lu mu la ko ci ñi nga xam daanaka ay second côté lañu muy ku ci mel ni Bassirou Diomaye Faye ak nga xam moo di Amadou Amadou Ba euh, yéenekaay gi ne ñi nag ana lan lañu war njëkk hmm. maanaam seen njëkk ci élection yi noonu la ko yéenekaay gi di ci plan B ex euh, euh, gi xëy jël na kàddu gi daal di koy jox ay nit ñoo xam sax xam na ma ci wàllu yoon mu ci mel ni Amar Thiam Diaga Sylla ba sax ay taskatu xibaar ku ci mel ni Pathé Mboy ak Abdoulaye Sow Abdoulaye Mbow kenn ku ne joxe na ci xalaatam lépp mu ci yéenekaay gi di Sud Quotidien Le Quotidien Bassirou Diomaye maanaam moom la président Ousmane Sonko tànn waaye candidat la boo xam ne bëri na loolu ay xiini mi na noonu la ko yéene kay gi xëy fësale euh, kon mu ngoog daal mu ngoog euh, euh, la daalal expert électoral la ci laaj ak tontu dox ci diggante ak suñu naatangooy moom Ndiaga Sylla ma ngay wax ne ne kii di Bassirou Diomaye Faye mën naa bokk ci élection présidentielle yi non waaye bu koy def nag du ko def ci tur Pastef mën naa taxawal beneen coalition bees nu la ko yéen kaay gi ressource a daal am ñëw dikkee yéen kaay gi di la mandat na ko wax ne jamono ji nguuram mu ngi ci tànk jeex waaye ay genre que ay coow yoo xam dafay dox ci seen diggante ba sax ay bakkan yoo xam sax dañ faatu mm-hmm. mu nekk nag loo xam président Macky Sall wax na ko lu jëm nag ci F24 ñoom yëkkati ci mobilisation Eh, ngir fas yéene jàkkaarloog décision bi nga xam mu tukkee ci Cour suprême ne la ko yéen a kaay gii di la mandat yéen a kaay bi di euh, compact with Africa sommet la goo xam nga amee fële ca Berlin président Macky Sall yëkkati na fa ay kaddu mhm. waaye kaddu yi daanaka dafa mel ne que président Macky dafa sol mbubbu avocat Afrique di défendre Afrique noonu la ko yéen a kaay gii di enquête xëy fësale a kaay geneen la soleil euh, le président Macky Sall daanaka avocat Euh, loolu la ko yéene kaay gi xëy fësale loolu kon mu ngi aju so benn boo xam lañu amal fële ca Berlin euh, muy compact sur la sur la coopération avec l'Afrique loolu ko ma ngi amee fële ca Berlin Dakar Times ci xët kaay gi Dakar Times ñëw dañu xëy fësal xibaar boo xam ne nee nañu réewum France taxaw na euh, ngir xoolaat jokkalante gi dox ci digganteem ak réewu Afrique yi le ndax dañuy gis ne ne fi mu toll ni Afrique bu woon ak léegi boot wéd a initiative nga xam ngi jëm ci wàllu développement ak ñoom seen euh, ba ci influence nga xam ne Russie mu ngi koy def yéene kaay ne lii daal bokk na ci li tax président euh, président Macron wax ni euh, jot na daal ñoo xoolaat coopération gi dox ci diggante France ak réew Afrique yi noonu la ko yéene kaay di Dakar Times xëyee fësal yéen a kaabi di laas askan bu dëkkee ca Falémé kontaan nañu ci Omar Sarr mi joru ñuy dénk wàllu miin ci nguur gi Euh, seen suuf si nga xam da mm-hmm. suñu gaynde mm-hmm. euh, moom ko mu jox suñu lamb yéene dafa xëyee dellusiwaat ci jël gi nga xam ne Siteu euh, am na ko maanaam jëlee na ko ci kanamu Lac de Guiers numéro 2